daleen jàmm mbokki internet yi ñiy safoo di seetaan suñu Actu TV yi nekk benn jéye boo xam ni mi ngi doon xew foofee ca Touba ginnaaw ba nga xam ni ñoom ñi di waa groupe Safinatoul Aman dañoo mujje woon a teg loxo ñaari xale yu jigéen ñaari xale yu jigéen yoo xam ni kat dañ leen a gisoon ni ki noone ñu daal di jàpp ne soog bi nga xam dañ koo soog dañuy ñàkkee war ma li nga xam ni moo di Touba ginnaaw boobee nag ñoom ñi di xale jigéen yooye nekkoon ay nit ñoo xam ni doon nañu liggéeyee foofee ca mairie bu Touba ñoom ñoom ñi di xaru jigéen yi sax ñetti lañ woon waaye ginnaaw boobee bañ leen doon dàkka ji ñu daal di si mujjee woon ba nga xam ne nag maire bu Touba yëg na boobee jëf mu daal di fay yoon ni kenn si ay ndaw moo di sëñ Sidi Mbacke moom mii di sëñ Sidi Mbacke nag ginnaaw ba xam ne demoon na si seesu Safinatu Amaan ngir seet ñi nga xam ne ñoo di xaru jigéen yooyee nañ leen fa nekkee ginnaaw boobee nag ba ñuy buuxante ak moom daal di koy moom mii di sëñ daanu ba yi nga xam ne moo di tànkam daal di fay mujjee damm lii nag nekk benn mbir boo xam ni ñu bëri si askan wi Touba ñu koy naqar bu baax baax baax ni ki noonee nag ñu daal di fay gisaat yu bëri yoo xam ne dañ doon génn di sànni xeer yi nga xam ni moo di seesu Safinatoul Aman ni ki noonee ba tey ñu ëpp si askan wi Touba ñi ngi demandé ki nga xam ni moo di sëñ Mountakha Mbacké ngir mu génn addu si roree ni ki noonee ba tey ngir mu génn daal di yeesal yi nga xam ni moo di nekkinu Safinatoul Aman foofee ca Touba ndax te kat ñoom ñi di waa Touba dañoo seetlu ne ñoom ñi di waa Safinatoul Aman dañoo am ñàkk yamare bi nga xam ni moo dox si seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di waa askan wi Touba.